min bahri juudihi tamla'u l-arda rayya wa nazratan bi ayni rahmatihi tusayyiru l-kaafira waliya allahumma salli ala sayyidina muhammadin il-faatihi lima ughliq wal-xaatimi lima sabaq naasiri l-haqqi bil-haqqi wal-haadi ila siraatika l-mustaqim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi l-aziim wa radiyallahu an shaykhina wa sayyidina wa murabbiyana ووسيلتنا إلى ربنا صاحب القتمية والكتمية أبا صاحب الفيل الأكبر قطب الأكبر برسق البراسخ إمام أئمة المجتهدين من جمع بين شرف العلم والعمل واليقين كامل الأنوار والمعاسن قوي الظاهر والباطن منور الصيب جليل المظهر بهي المنظر wa kalimatun nafidatun fi l amri bilmaarufi wannahyi an ilmunkar saaxibi alxayraati saaxibi alfuyudaati saaxibi albarakaati mawlaaya abil abbaasi seyxana ahmada tijaani wa radiallahu an jaddina almujahidi al akbar maam ahmadu ndaak sekk radiallahu anhu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba nu sante yàlla di ko ñaan mu dugalal ñu ci sant gim sant boppam muy alhamdulilahi rabbil alamin di ko ñaan mu jullil ñu ci sang ba ki nga xam ni moo ñu fi tax a daje ñun ñëpp yal na yàlla jullil ñu ci moom muy seydina muhammadu rasulillahi di ñaan képp ku fi teew yal na yàlla defal la njëggal yal na yàlla defal la yërmande yal na yàlla def la farug bàkkaar yal na yàlla defal la ko fajal la sa aajo ci zaahir ak ci baatin ci barke borom guddi gi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam góor ga dafa wax ni wa mawliduhu bihi sarafun wa gayrun fa fi taasimi intaun sujuni mu ni ku bëgg yàlla faj sa aajo àdduna ak àllaaxira màggalal guddi gi nga xam ni mooy guddi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bis la boo xam ni bisu mbégte la yàlla yàlla fayal ñu ko moom rasulillahi waaye nag yàlla yàlla gërëmal ñu sunu sang ba ki nga xam ni bu dul woon ak moom kenn du xam rasulillah ki nga xam ni mooy xalifa njol màkka kooku mooy buntu rasulillah mooy doomam kooku mooy jàngale rasulillah kooku mooy sunu sëriñ ñun ñëpp mawlaana abil abbas yi cheikh ahmada tijaani radiallahu taala anhu wa ardahu an abi abi waaye yàlla yàlla gërëmal ñu sunu maam ju tedd ji tëdd ci kanamu jumaa ji maam ahmadu ndak sekk yàlla yàlla yokk ay leeram yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem ci barke rasulillah yi ci bark si Ahmada Tidiane yi waaye ñu ngi nuyu sunu wayjur wi tedd yi fa tabaarakallaahu taaral jotaay bi nga xam ni namoon nañ leen lool jàkkaarloo ak yéen muy sunu bàyyi sunu soppe yi sunu xarit yi wayjur yu baax yi wayjur yu tedd yi wayjur yi nga xam ni ay xam-xam rekk lan ànd ak xorma ndax bi xurmatin wasala man qad wasala bi tarkiha fasala man qad fasala kooku mooy sunu way jur sëriñ a sekk borom ndigal di ñaan yal na yàlla guddal sa fan sëriñ bi yal na yàlla sàmm la yal na yàlla taxawu la yal na yàlla aarla ba lépp loo xam ni yéene nga ko ci diine jik tarixa bi yal na ko yàlla mottali ci barke si Amada Tijaani yi sëriñ As ñu ngi nuyu sa doomu nday sa xarit sa soppe sa lépp sa seex ki nga xam ni yéen ñaar du ñaari jëmm benn jëmm ngeen kookooy kan mooy borom baat bu neex bi nga xam ni bu woyee ibnu muhayim ñëpp kontaan kooku mooy sëriñ aadama sekk yal na yàlla guddal fanam yal yàlla sàmm la yal yàlla taxaw la yàlla aar waaye di nuyu mboolem mu xaddam yi nga xam ni ñoo toog ci tribune bi di wéttali sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay fa tabaarakallaahu tant bi ñoo ngi leen di nuyu góor ñi ak jigéen ñi yàlla na yàlla sàmm leen yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla aar leen ci barke rasulillahi yaakaar naa bu mu nuyu sëriñ Souleymane Gueye day yóbbaale ñépp ci taxawaayu gàmmu gi fa tabaarakallaahu taxawaay bi mu am macha allah ci fédération bi sëñ Souleymane mbaa ngi lay jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo nga jàllaleel ma ko ci ñëpp yal na yàlla sàmm la aar la waaye maa ngi nuyu ñu doon tagg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama xarit sama soppe wala sunu xarit sunu soppe muy Pape Abdoulaye Mboup maa ngi lay nuyu baax di la ziara di la bégee di la ñaanal yonent bi nee na man mada ani walaw bi baytin wa jabtu lahul janna ku ma tagg man rasulillah yi donte benn bayt la gaarantel naa la aljana moo tax borom inu mohib tey inu mohib rek laay waxtaane incha allah borom inu mohib nee na ridallahi ngërëmal yàlla xatmun ak warlug aljana fimtidaayi nabiihi yàlla defal na ko ñiy tagg rasuulillaahi kon yéen ñu ngi leen di ndokkeel lu wala loolu mu ni walillaahi ñeel na yàlla xulsaan jaam yu sell waaye wala kasafiyihi ku mel ni rasuulillaahi du amati ba ilaa yawmi diin muhammadunil muxtaar yi moo tax damay faral di wax ni ñun juddu gi lañuy màggal mais bin ëmbee rasuulillaahi maanaam guddi gi nga xam ni ëmb nañ sayyiduna muhammad guddi ajjuma la guddi ajjuma ci la leer gi jóge ci abdallahi ñëw ci amina gis nga guddi googee dañuy jekk ba yàgg di dégg am luy woote ci jaww ji mais duñ gis jëmm nag mais ma ngay woote naan bu kenn nelaw guddi gii guddi gii lañ nar a ëmb sang-sang yi rasulillah yi lay woote ma ngay woote naan ay waay parfum leen seen kër yi cuuraay leen seen kër yi lal leen seen mokket yi ndax tey jii lañu war a ëmb sang-sang yi keroog mboolem buntu aljana yi guddi gi ñu ëmbee njool màkka dañoo tijji mboolem buntu aljana yi waaye yëguloo ni guddi gi ñu ëmbee rasulillah yi ajjana lu muy taaru taaru keroog dañoo yokk taaru aljana yëguloo ni biñ ëmbee njool màkka guddi googee jant bi lu muy leer leer dañoo yokk leeraayu jant bi ndax sayyidina na rasulillah yi moo tax borom xam-xam yi nee nañ guddi googee iblis dafa jooy jooy yu métti moom iblis nee na sët yi wër ko ni ko looy jooy mu ni li may jooy mooy guddi gi lañ ëmb koo xam ni bu juddoo suñ mission yëpp yàqu na nee na bi ma amee njol màkka ba am six mois sallallahu alayhi wa nee na damay dox ci àll bi ba yàgg amina mooy nettali yaayu rasulullah yi nettali nee bi ma amee njol màkka damay dox ci àll bi ba yàgg am lu ma dóor nee na ma geesu nee mu ni ma dama lay wax ni yaa ëmb weer wi yaa ëmb sangu mbindéef yi bu juddoo na nga tuddee rasulillah yi xuuli unzilahu min charri si asadin bil waahidi samadil mawsuufi bil xidami moo tax borom inu mahib ni xawa làq na moom njol màkka kulla majdin borom inu mahib nee na lépp luy tedd nga njol maka làq na ko borom inu mahim nee na wa jalaalatin bala ma ko firi mu bëgg kenn ku nekk nga dandal jox ko loxo ko baal ma ci barke rasulillahi maa ngi ñaan kenn ku nekk nga dandal jox ko loxo ko baal ma ci barke rasulillahi maa ngi ñaan ku fi indi bàkkaar yal na yàlla jéggal la ci barke rasulillahi maa ngi ñaan ku fi indi aajo yal na ko yàlla faj ci barke rasulillahi maa ngi ñaan ku fi indi jàngoro yal ko yàlla saafara ci barke rasulillahi borom bi nu Muhim nee na lépp luy tedd nga njol makka làq na ko ey wajaa at indi na moom njol bi ayatin alquranul joo xam ni maxat effacé na kulla qaalatin bépp wax moom rasulillahi ey borom inu muhim nee na kuy werante ci mbiru sayyiduna muhammadu rasulillahi nee na xool ku sànku jàppal ku bañ sayyiduna muhammadu rasulillah ey kuy sikk sàkkal mbiru rasulillahi borom inu muhim nee na yaa sànku mboolem yonente yi jiitu woon ñëpp nangu nañ ñi kennay sang bi muy rasulillahi ey mboolem yen yan jàngoon ñëpp jàngale nañu benn sang moo am muy rasulillahi mboolem tiir jàngale nañ ñi benn sang moo am mu rasulillahi eey maa ngi joobe tiir yi maam ahmadou ndak bi ibnul muhayyib ku sopp rasulillahi dafa lii barab nu mooy nee na laxad xasama séddale na allahu yàlla nee na ak sang yàlla séddale na ko ci azal moom yàlla ñu ne ko kum ko jox mu ne li ahmada jox na ko sayyidina muhammadu rasulillahi wal ixsaana mboolem luy rafet yàlla jox na ko ci rasulillahi mboolem wax ju baax mboolem jëf ju rafet yàlla jox na ko rasulillahi borom inu ma ib nee na falillahi maa ngi yéemu ci yàlla maa asda li yàlla may rasulillahi moo ma yéem borom inu ma ib nee na walillahi maa ngi yéemu ci yàlla nee lim daan joxe ndax tabam moo ma yéem moom rasulillahi borom inu ma yim nee nag ki daan xettali jirim mooy rasulillahi borom inu ma yim nee nag ki daan mooy rasulillahi borom inu ma yim nee na borom ker gu matale ga mooy rasulillahi borom inu ma yim nee na borom naataane nga mooy rasulillahi ey borom inu ma yim nee na muhammadu rasulillahi borom inu ma yim nee na dëj muhammadu rasulillah lépp luy cofeel jël ko nga jox ko barab inu mahim nee na demal madinatul munawwara nga ziyaari ji rasulillahi barab nee na sa tànk bi fexeel ba dëgg ko madinatul munawwara ey barab inu mahim nee na benn sang moo am muy rasulillahi ey na la doy sëkk nga dem ziyaari ji rasulillahi ey bu la yàlla mayee ba nga dem màkka ziyaari ji njol màkka santal yàlla na sabirun aw doj la woo xam ne njol màkka jaaroon na fa Uhud am woo xam ni amoon nañ fa xare njool jaar na fa borom inu muhim ni la mooy màkkatal mukarrama waaye la laajee nañ ko yónni mu dem madinatul munawwara ey borom inu huwa moom njool màkka xabdu mooy jaamu yàlla in ardaytahu bu kontaanee moom njool màkka nee tur di day kontaan rabbuhu yàlla borom inu mahim nee na waman yàlla may nga ziyaare njol màkka fallaahu yàlla ci boppam yaxfiru dana ko jéggal borom inu mahim nee na ku ziyaare ñu njol màkka yàlla jéggal la sa mboolem bàkkaar éey inu mahim na yëgal ni ñun ñii toog fii nee na am na ñoo xam ni bëgg nañoo dem madinatul munawwara mais amuñu paas bu leen yóbbu ñu ziyaare ji rasulillahi borom Ibnu Muhim nee na am na ñu bëgg a dem madinatul munawara waaye amuñu wér gu leen may ñu ziar ji rasulillahi borom Ibnu Muhim nee na ñooñu li ma leen di digal mooy nañ bëgg sayyiduna muhammadu rasulillahi waa tant bi dama bëgg ngeen sara góor ñi fettaxu ñu màggal sayyiduna muhammadu rasulillahi waaye xanaa fii kenn bëggu fi bàyyi Abdoulaye bàyyi Qasim bàyyi Ibrahima bàyyi Seynabu bàyyi Umu Kalsum bàyyi Fatima bàyyi Roqaya maami Ousseynou ak Assane maami Abdul Qadir Jelaani bàyyi Seexuna Tijaani ana ñu bëgg rasulillahi ey borom inu mahib nee na bu yowmal qiyaamee bakkaar yi lu muy bëri bëri lenn rek laa yaakaar muy bëgg gi ma bëgg rasulillahi éy borom bi nu ma yim nee na samay jëw samay rambaaj samay tooñaa ngi bëri bëri maa ngi yaakaar yàlla baal ma ko ngir bëgg gi ma bëgg rasulillahi éy way diriku naa dana ñuy jot lan moo ñuy jot ixsaanuhu mbaaxu sayyiduna muhammadu rasulillahi gis nga nit ki fu mu mën ko nekk mën naa connecté wu waaye ana ñu bëgg borom innu wahib borom innu wahib nee na bi zikri rasulillahi sëriñ As borom innu wahib nee na sëriñ Adama bi zikri rasulillahi tudd gi may tudd njool Makka nee na tagg gi may tagg sayyiduna Muhammadu rasulillahi asmu ci laay yëkkati ku man borom innu wahib wa atali ci laay kawe man borom innu wahib ey borom innu wahib ne waxal bi sama xolbi nee na ci bëgg gi ma bëgg rasulillahi bis nee yastali maa ngi jaaru bi sababati tàngoor gi ma bëgg njol makka daa mujj di tàng ba damay mujj jaaru ndax tàngoor eey maa ngi jaaru ndax tàngoor wi nekk ci man ndax bëgg rasulillahi baram inu mahib nee na bu yowmal qiyaamee bu yàlla dajale nit ñi ci benn palaas nee bu yàlla yi peesa jàmm ñi bëgg rasulillahi la yaakaar waaye ana waaye ana ñu bëgg borom guddi gi def leen ni ñu màggal rasulillahi way dirku naa danañu jot lu ñuy jot way dirku naa jot lu ñuy jot eey way dirku naa danañu jot moo tax borom inu muhim ne ala inna rabbal arshi borom inu mu yàlla yàlla ci boppam sarrafa moo teddal ahmadan sayyiduna muhammad ey woo faa yàlla moom matal moom yàlla lépp luy mbégte yàlla jël na ko jox ko lépp luy teraanga yàlla jël na ko jox ko rasulillahi ey borom inu mahim ne borom inu mahim ne na yàllaa ko rañaane ci adduna te ëllëgee moo koy ramuloo eey borom inu muhim nee na jarat daw na laylatal isra'i guddig rañaan nga borom inu muhim nee na bim rañaanee mbooloom daraja ci la ko am moom rasulillahi eey borom inu muhim nee na ana kan ci tant bi moo nuroog rasulillahi eey déedéet déedéet yàlla du bind ku mel ni rasulillahi ba ilaa yawmi diini nee na ku yéeg di rañaani ba mel ni du am ba ilaa yawmi diini moo tax borom inul muhim nee na arru ala zikri nabi waxtadi sëriñ aadama borom inul muhim nee na bu may gontu li may gonto mooy tagg rasulillahi waaye bu ma xëyee bala maa ndékki li may ndékkee mooy tagg rasulillahi wa arju maa ngi yaakaar nee na nee na tagg gi may tagg rasulillahi maa ngi yaakaar ñu teral ma ëllëg yowmal qiyaam eey borom inu mahim nee na maa ngi gindiku ci yàlla di tagge rasulillahi borom inu mahim nee na mboolem kii jubale kenn la muy rasulillahi eey waa nag xoola dama bëgg nag dama bëgg nag léegi dugg nag ci sëriñu sëriñ si yaakaaru jàmm ñi Cheikh Ahmada Tidiane Serif dama bëgg ngeen jug taxaw toogaat ñu màggal Cheikh Ahmada Tidiane yi ana ñu bëgg Cheikh a Tidiane yi jug leen taxaw toogaat ñu màggal Cheikh Ahmada Tidiane kooku mooy Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi ana ñu bëgg Cheikh Ahmada Tidiane yi ku jug taxaw toogaat yàlla yàlla may la nga ziyaar ji seexuna tijaan yi bu la laajee kan mooy buntu yàlla mooy si amada tijaan yi bu la laajee kan mooy xalifa yàlla mooy si amada tijaan yi bu la laajee kan mooy jàngale yonent bi mooy si amada tijaan yi bu la laajee kan mooy doomu yonent bi mooy si amada tijaan yi waa tànt bi xanaa ku bëgg si amada tijaan yi nekku fi ana ñu bëgg si amada tijaan yi mboolem daraja ji mboolem may yi yonent bi jël na ko jox ko Cheikh Ahmada Tidiane moo tax Alaaji Maalik nee ku bëgg Seexu Tidiane yi bala ngaa dee doon waliyu xanaa tant bi ku bëgg Seex Seydi Haaji Maalik nekkul ci tant bi Alaaji Maalik nee ku bëgg Seex Ahmada Tidiane yi bala ngaa dee doon waliyu walan yamuuta man yuhibbu sayxanaa ilaa idaa saara waliyan biitinaa maam Amari Ndaak maam Amari Ndaak darajaam lu muy rëy rëy yàlla ngi ko may ci barke Seex Ahmada Tidiane yi hey Mamour Talla Seck daraja ji lu muy riiri yàlla nga ko may ci barke si Ahmad Tidiane yi yëguloo ni Baye Moudli Seck daraja am lu muy riiri yàlla ko may ci barke si Ahmad Tidiane yi ay waay Baye Talla xaar sa baay bu tedd ba Baye Talla xaar daraja am lu muy riiri yàlla nga ko may ci barke si Ahmad Tidiane yi maam daraja am lu muy riiri yàlla nga ko may ci barke si Ahmad Tidiane yi hey maam Ibra Penda daraja am lu muy riiri yàlla nga ko may ci barke Cheikh Seydi yi ey yëgulu ni Baye Ousseynou Xaar darajaam lu muy rëy rëy yàlla nga ko may ci barke si Amara Tidiane ey Baye Ousseynou Xaar darajaam lu muy rëy rëy yàlla nga ko may ci barke si Amara Tidiane waaye dama ni Baye Abdourahim Seck mi ñuy jooy toon lu péggum darajaam lu muy rëy rëy yàlla nga ko may ci barke si Amara Tidiane Baye si Amara Tidiane Seck darajaam lu muy rëy rëy yàlla nga ko may ci barke si Amara Tidiane ey maam Alpha Mamadou sëñ Ibrahima seeni daraja lu muy rëy rëy yàlla ak leen ku may ci barke si Amada Tidiane ustaasuna sunu sëriñ mooy si Amada Tidiane ah Seexuna Tidiane mooy sunu royukaay mooy sunu njiit mooy barzaq bi mooy gën ci mbindeef mooy xuddul wujuudi mooy wul adduna mooy sunu sang mooy ki yàlla nëbb mooy ki yàlla kaste mooy sekra yàlla ci baatinu xëybu eh ana ñu bëgg Cheikh Ahmed Tidiane aha aha nee na ki yàlla nëbbu kenn du ko xam adduna kenn du ko xam alaxira mooy Seexuna Tidiane yi moo tax tarixa bi boo ko jëlee booy faatu da nelaw nelaw yow a jaal jana na ëllëg bu yowmal qiyaamee booy dugg aljana ci kaw laa fi yi ngay jaar àjjana nee na ku bëgg seexu tijaan yi bu duggee ci biir bàmmeel kenn du ko laaj man rabbuka kenn du ko laaj maa diinuka kenn du ko laaj maa kitaabuka kenn du ko laaj maa nabiyuka day ñëw ñu jox ko rasulillahi rasulillahi jël ko yóbbu aljana waa xanaa li ma wax daf leen saful ana ñu bëgg si Ahmada Tijaani yi kooku mooy néegu wilaaya moom si Ahmada Tijaani yi nee na lamp bi nga xam ni moo leeral adduna mooy seexu tijaan yi caabi bi nga xam ni moo tijji magasin leer yi mooy seexu tijaan yi nee na ki téye leer yi donde ko ci rasulillahi mooy seexu tijaan yi nee na jantu xam yàlla mooy seexu tijaan yi nee na ki sut mboolem nitu yàlla yi ki leen di sédd mooy seexu na tijaan yi nee na lépp luy ngëneel seexu tijaani yonent bi jox na ko ko nee na mooy doomu rasulillah diggante rasulillah yi ak si ahmad tijaani ñaar fukki maam ñeent ñoo ca dox ahmad ko jur muxtaar jur ko ahmad jur ko muhammad jur ko salim jur ko abilhid jur ko salim jur ko ahmadul alwaniyu xaliim jur ko abdallaahi jur ko abbas jur ko abdul jabbar jur ko idris akbar idris asxar Ishaq Seydul Abidina jur ko Ahmad jur ko Mouhamadou Nafsakiya Abdoulaye Kamil Hasanul Musanna Hasanul Sibti Sayyidatuna Fatima Njol Makka jur ko ñii ñooy maami si Ahmada Tidiane yi waaye xanaa kon yéen seen sëriñ bi kon sët la ci seexu Tidiane waaye doom la ci seexu na Tidiane waaye dama bëgg nag bala koo tëj dama bëgg an na ñi bëgg borom jumaa ji tabaarakallaahu borom tëddaay bu jekki bi maam ahmadou ndak sekk dama bëgg ngeen jug taxaw toogaat ñu màggal maam ahmadou ndak sekk radiyallaahu taala anhu ey aya sayida saadaati maa ngi joobee sangu sangi amari ndak najdal musaidi maa ngi joobee doomu maam masayar sekk ji eyi maa ngi joobe ki ginni mbindeef yi ki leen defar laay joobee nee na naxwa muhammadin ki jël jaam ñi yóbbu leen ci yonent bi kooku laay waaj a joobe nee na ki leeral yoonu dëgg laay joobe muy si Amada Tijaani nee na pakk boo dem taalibe si Amada Tijaan bi te mooy amari ndaa leeral na fa diine wa rabbayta arwaan yaa tarbiya ruu taalibi yi amari ndak nee na ruu yëpp takk na leer nañ ngir maam amari ndak radiyallahu anhu ey fala salati yàlla bum deñ anwaaru leeru yàlla yi nee na fil xabri xabrom bëre nee na leeru yàlla yàlla bum deñ du sotti ku ci xabru amari ndak nee na mboolem luy faydu muy ay leer yoo xam ni day sotti ko jóge ci yàlla jaar ci rasulillah yi jaar ci sama tijaan yi yàlla na ko yàlla sotti ci sunu maam ja maam ahmadou ndaak tey ak ëllëg nee na ngi lay ñaanal yow amari ndaak yàlla nga nekk yow yow mi nga xam ni yaa aar diine ji hey kunta nekk nga yan di aar diine ji yow amari ndaak nee na yaa xeex ak noon yi ba ñëpp ni ashadu an laa ilaha illa amari ndaak dafa tëdd ba guddi ñu won ko leeruk rasulillah ak leeru si Ahmad Tidiane mu taqaloo doon benn ñu ne ko boo bëggee bokk ci ñii lenn moo la koy may mooy da ngay nangoo jihaad boo defee loolu ñu naan jihaad yàlla dina jël sag leer tabaarakallaahu ci barkeem daat koy tabbal ci leeruk rasulillah yi ak ci leeruk si Ahmad Tidiane yi radiyallahu taala anhu tax amari ndaak bàyyi ay soxnaam bàyyi ay doomam Pamour Gueye bàyyi lépp ngir baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulillah yi ah nee yaa xeex ak iblis amari ndaak nee moo jàkkaarloog iblis xeexut ak moom ci dóor de ci bakkan la xeex ak moom ba iblis fu mbedd amari ndaak jaar iblis fee lay ey ey yaa xeex ak iblis yow amari naag iblis mi yàlla bañ iblis mi yàlla jëpp xoola kenn rek la ragal nee na ki muy rek ki mu ragal mooy amari naag sax mboolem jant dëgg yi leer na ci mboolem goxi sénégalais yi ci barke amari naag nee képp ku jub da xam ni amari naag tasaare na leer ci Sénégal eey bi himmatika ci sa yitte ji yow amari ndaak alxulya sa lépp sa yitte ju kawe ji yow amari ndaak ci nga laqe ay martaba yow amari ndaak nee na ci takku gi nga am yow amari ndaak ak sa dogu gi nga am yow amari ndaak ci nga amee lépp loo bëggoon ci nga ko amee yow yaay njiit lii yaay njiit lii yaay njiit lii yaay njiit lii yaay njiit lii yaay xaritu yàlla yaay soppe yàlla yaay njiit lii ana ci bëgg maam amari ndak sekk ey yaay ku tedd gi yow amari ndak ey fuloo fay amari ndak yaa matal kollëre nee na booy wut ku matal kollëre jàppal amari ndak nee booy wër jaamukatu yàlla jàppal amari ndak ey booy wër ku matal kollëre jàppal amari ndak ey nee na amari ndak kawe ci képp kuy wut ak njub da nga xam ne amari lak sang la ey yëguloo ni làq nga cër yow amari lak ey mboolem cër góor yàlla yi yàlla jox na la ko ey sëñ a samam amari ndaak làq na mboolem cër góor yàlla yi e mboolem cër boo xam ni Seexu Tijaani mus na koo jox ay gaayam jox na ko sunu maam ja eey mboolem ñi nga jamonoon teel kawe nga leen yow Amary Ndack Seck mboolem gox yi leeral nga fa yow moom Amary Ndack Seck eey mboolem luy cër yàlla jox na ko yow moom Amary Ndack ah tabaarakallaahu mbokk yàlla yàlla barkeel ñëpp ngi xaar sunu sunu sunu baay bi sëñ aadama kenn kenn kenn la du doyal ci ay kàddoom waaye kon ñu ànd ak ba fajar kon sëñ aadama ñoo ngi lay diglu di yàkkam bi sa kàddu lool di ñaan mbokk yi yal yàlla faj aajo yi yal yàlla saafara jàngoro yi yal na yàlla jéggalu suñu bàkkaar sëñ As kontaan yàlla yàlla kontaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa استقل بشرعه بها يسعد الآوي إليه فيسعد Thiénaba TV sunu yëf kon ñoo koy bokk taxaw mbokk ngir dara Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am warisna huda anhu fa akrim bi irsihi